la Cheikh Falilou Fall asalaamaaleykum mbokki internet yi safoo Jazboul Mouride TV ci biir réew mi ak bitim réew ñi nga am mbégte bu rëy yi ñëw ak yéen fii ci njaareem ñëw ci ñeenteelu ndogu yi nga xamante ni mooy ndogu ajjuma yu Serigne Amdi Khady Fall di amal ibnu Chérif Assane Fall tey nag bu ñu tuddee Cherif Assane Fall tudd Kawsara tudd Njaareem xel dafay dem ci jàmbaar yi Cherif Assane yi muy euh, sëñ Abdou Aziz Fall ibnu Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall xel dafay dem tamit ci sëñ Mbacke euh, sëñ Moussa Fall bu sëñ Mbacke Fall ak njabootu sëñ Amdi Khadi Fall yi nga xamante ne ñooy taxawee fii ndogu Njaareem ñu war a ànd ak yéen ci ndog yi war a ànd ak yéen ci togg yi lépp lu nga xamante ne moo ñeel ndog yi ñu war ci ànd ak ak euh, sëñ Mambay loo Mambay Lo ñu ngi lay nuyu bu baax a baax tey nag ñu ngi fi Njaareem ñu ngi ziar bu baax Baye ñi ngi teewlu li nga xam mooy Jazboul Mouride TV comme niñ koy amalee bis bu jot rek su ndog yi mboolem kër yi Cheikh Ibrahima Fall yëpp waa Jazboul Mouride dañ fay dem indil leen li nga xamante ni mooy ndogu maam Cheikh Ibrahima Fall comme ni nga ko waxee rek tey ñi ngi si kër gi nga xamante nag mooy jàmbaar yi ndog yi noonu lañ koy muy sa yam di xalifa borom borom ku yokk yaa wàññi nga xamante ni mën naa dox na dox fii lañ fii lañ ko gisee nga xam ne ku si nekk rek eh, li nga li nga mën mbaa li nga xam baa li nga am lépp da nga ko boole indi si li nga xamante ni mooy ndongo yi waaye Baye Ndongo tey daa nekk jour bu spécial mooy ajjuma gu mujj si li nga xamante ni mooy weeru koor boo xoolee mbooloo bi gën naa yokk camion yi gën nañoo yokk nag yi gën nañoo yokk maanaam lépp loo xamante ni benn la woon tey jii sëriñ bi def ko fukk loolu nag day firndeel yokk bi nga xamante ni moo nekk si eh, yoonu sëñ Bàmba bi man damay dégg ñuy wax sax naan yoonu sëñ Bamba amul tànk ginnaaw waaye damay faral di wax ni lu saña lu am tànk ginnaaw saña saña saña saña dellu ginnaaw maamu waaye ay laaf la yoonu suñ Bamba mbaam nga xam ne mosoo gis lu am laaf ba noppi di arrière kon lool loolu lañ leen di wan tey dugg si biir wan leen ni comme niñ ko daan defee dañ dugg yéen si waañ bi am nañ yéen tamit ay interview yu ama am solo ak mbokki taalibe yi nga xamante nee nañ fi waaye jëwriñ yi nga xamante ni ñoo ne si kër gi kon noonu lay àndaate yéen dugg fii nga xamante ni mooy njaareem nga xam ne fii la lépp xewee woon fii Baye Ndongo fii la Cheikh Ibrahima Fall jotee woon ndigal li njaareem bii la jotee woon ndigal lu toggu ndogu tey nag ñëpp ñu ngi ko siy roy muy jullit bi ak ku nekkul jullit ni ma koy faral di waxee marmite du cœur am na mbooleem loo xamante ni xeetu def def la muy muy jëf joo xamante ni day doon ay ndogu nit ñi ñu ngi koy def murid yi ngi koy def léegi tijaan yi ngi koy def xaadir yi koy def laan yi ngi koy def te ñëpp si Cheikh Ibrahima Fall daana wax nag na sama yoon bi ku su see dañ ci njaaloo kon ñëpp fi mu ne ñu ki nga xamante ni moo mat a roy nag muy si lii nga xam mooy ndog yi ànd ak yéen tabbi si biir wan leen li nga xamante ni mooy liggéey bu réy bi nga xamante ni sëñ Amdi Khady Fall yàlla fi yàgg lool téwér ñu koy liggéey si ndog maam Cheikh Ibrahima Fall waaw kon mbokk yi ni ngeen ko gisee noonu ñu ànd ak yéen ci biir liggéey bi rek indi leen lépp lu nga xamante ni mooy information ñu war ko xam ci waar jërë ngeen def comme ni ñu leen ko tegtalee léegi ñu ngi nii ci euh, waañ annexe bu ñu nee waañ annexe nag mooy waañ bi nga xamante ne dañ koo sof ci liggéey bi sëñ Mbaye yaa ngi doon wax léegi lu am solo muy yoon bi amul tànk ginnaaw tànk kanam la am mooy ku yokkul yaa wàññi bi sëñ am di xadi doon wax ñu nekk ak jëwriñ joo xamante ne fii nii jëwriñ la ci waar ñu bàyyi la nga moom ñi ngi taxaw ak ak Mbaye Jibi Guèye nga xamante ni jëwriñ la si waañ bi yor fi tamit liggéey bu am am solo comme ni mu ko waxee woon sànq rek liñ doon wax sànq lii firndeel na ko mooy fii mësta nekk waañ mooy daral la woon waaye tey jii waañ nañ ko def ngir liggéey bi yokk naa yokk ba xajatu fi nga xamante ne fa lañ ko daa toggee muy wane ni tànk yi ñuy wax ni Serigne Touba amul tànk ginnaaw kon bàyyi ji bi dañ lay laaj loolu ana lan moo ko waral fii nga xamante ne daral la woon ana tey jii lan moo tax ñu def ko tey waaj waaye nag liggéey bi moo toll fenn foo xamante ne kenn mënu nëbb mhm. toll fenn foo xamante ne tamit foo ko natt rek weesu na ko ndax comme ni ngeen ko waxee rek fii daral la woon waaye saa su rek ci njàmbaaru sëñ bi dañuy gis ne liggéey bi day yokk lu ci mel ne gàtt yi nga xam ne moom lañ ciy indi ak li nga xam ne ba ci ganaar yeeg yépp rek day yokk kon loolee nag bu ñu bëggee booloo ñun ñëpp di ko defee ci wàññi boobu dina xat te condition liggéey bi ni ñu ko bëggee amaana du demee noonu loolu nag bokkal na ci lu tax tey jii ñu jël fii doonoon dara def ko wàññ waaw loolu la doonoon sabab bi ngir liggéey bi gën a yaatu ba taalibe yëpp ku nekk rek mën cee barkeel waaw. Baye Ndongo man daa loo xamante ni man daf te lo lu ma bëgg a laaj lan ngir ñeneen ñi nga xamante jaaxal na leen ñu mën see gindeeku mooy organisation bi nga xamante am na fii gis nañu cin yi dañoo bari lool tegaloo waaye li ma jaaxal mooy naka la nit ki di xàmmee ni cin bi moo ko wala moom fii la war a ak naka lañ koy organisation bëgg nga ñu. organisation bi ni nga euh, euh, muy cee dox dox bu am ci ndigalu bi ndax boo ko seetee daara Kawsara kilifa ci boo ci gisee kenn ku nekk rek biir këram am na ay soxna yu fa nekk ci nii nag buñ koy rappal boo ko teeloo ci fajar bi da ngay turu soxna yi ñuy woo nag lu mel ne si Moussa Fall mën nañ fa génnee lu tolloog ñett wala ba ñeent soxna yoo xamante ne ku nekk dañ koy jox ndax léegi nag nit ñi nga xam ne ku nekk rek boo yegsee di nga xam sa biir kër sëriñ maanaam yan ndax nañ fa joxe ak fan nañ koy teg ak cin bu nekk fan nañ koy teg bu ko defee da ngay ñëw rek jubali ci waar boobu waaw leneen li nga xam ne tamit dina ci indiwaat organisation bi ku mel ne man su tardé ba ñëw waxtu boo xam ne fekk na bi ñuy rakkal xamul fan lañ teg ci nañ lu mel ne déguisement yi ndax di nga gis lu mel ne vert jaune gis lu mel ne bleu loolu dina tax tamit nga xàmmee sa kër sëriñ ba boo ñëwee rek da ngay jubal foofu directement di nga am na ñoo xam tamit bleu noir la ñuy def loolu lépp rek ci xeetu organisation la waaw. bay Mbaye man li ma ko bëggoon laaj mooy comme dafa tudd léegi lu am importance muy euh, déguisement yi. Mm-hmm. ndax maa ngi koy junj léegi ci tàmbali bi kër sëñ Amady Khady dafa nekk kër goo xam ne daa uuf kër yu bëri. uuf sëriñ yu bëri. Mm-hmm. léegi yéen naka ngeen di mën a def ba bu ngeen paree ngeen mën a regrouper liggéey yooyu noonu nga xamante ne fii ci waañ bi la mooy waañ bi ñu sof ak waañ mu njëkk ba ngeen boole lépp mu parendoo ci même waxtu ngeen mën a dajalandoo ci même waxtu ban liggéey loolu laaj waaw loolu comme ni nga ko waxee rek maanaam mbooloo bi dañuy takk ànd ak Pastef bu baax a baax ngir ne mën na am euh, tardement waaye du bari rappel lay doon comme ni ma ko leeralee sànq rek képp ku ñu woo rek ñëw jël si sa boo jël see sa ndab nga dem teg ko fi nga xam ne fa ngeen nu ngeen leen yóbbu comme ni ñu defee organisation bi ne ci misaal waa kër suñu Moussa Fall bind nañ leen ci wàññi annexe bi comme ren niñ ko defee bu ko defee dañuy topp ordre boobu bu ñu ñëwee tàmbali liggéey bi suñu ñëwee rek def ci positif bu baax a baax nag daal di ciy nekk bu ñu jógee ci loolu ba bañ mu yemb ba ñu teg suñu bool du ñu yëkkati rek bool yi daal di koy jëmewaat ca euh, kër sëñ am di teg ko fa déedéet dañuy dégluwaat ndigal comme ni ñu woowee woon buñ ñu woowee tamit ñu xam ne xaarante dina ci am ba nag yëpp yembandoo ñu boolee noo lépp tegandoo ko jébbal ko sëriñ bi mu doog ñoo defal ñaar saa su daal loolu mooy indi organisation bi ñun bu ñu njëkkee pare sax amuñu ndigalu dem yóbbu ko dañuy nekk ba ñeneen ñi tamit noppi bu ko defee ñu booloo daal di dem jébbale ji liggéey bi saa su ne moom lañ koy taxawale mbokk yi ngeen ko gisee ba tey ñu ngi ci spécial édition spéciale bi nga xamante ne moom la ñuy def kër Serigne Amdy Khady Fall ba tey ñu ngi ak kenn ki nga xamante ne dafa bokk ci jëwri ni muy Serigne Saliou Mbaye sëñ Mbaye ñu ngi jàkkaarloo jàmbaar yoo xamante ni fii buñ ne kaddu xel dafay dem ci Baye Moussa Seck waaye ginnaaw Baye Moussa Seck yi tamit bu ñu amee sëñ Saliou xel dafay dal ci ko xamante ni mun naa waxtaan ak murid yi rawatina ñi nga xamante ni ñooy safoo euh, liggéeyu sëñ Amdi Khady Fall sëñ Mbaye ñu bàyyi la nga nga laaj sëñ Saliou waar wi ak liggéey bi nu muy doon. waaw kay bàyyi noonu ba jërëjëf sëñ Tonton bi Serigne Saliou ñu ngi lay nuyu baax di la ziyaare xam naa ñun liñ bëgg a laaj sëñ Saliou muy doole ji fi ne ndax fii ku nekk xam na ni li fi ne du neen maanaam doole ji nekk kii kër biir kër sëñ Amdi Khady mu nga xamante ne ku wax ndog yi jambar ji buñ koy tuddu rek sëñ Amdi Xadi lañuy joxe manam non lañuy ñuy tàmbaleeg yow doole ji nga xamantene ne sëñ Xadi amna ko ci liggéey Seera Fall laaj nga laaj bu am solo di laaj bo xam ne si ne na ci am lu ci mëna a waye deug deug la ci bir amadu du ndax mbirum batil da ci da ci ne waye sëriñ Amdi Xadi mom mën na ni jambar gi nga xam ne si maam da koy doxee daa doon lu mu donu ci wéy mu tedd wa Seex serigne ousmane Fall ndax it ñi nga xam ne si maam na jëmale serigne xamone na naka jek ko ni lo na def waaye saya sëñ Cheikh li li yéem jaam ñi mooy daa yokk liggéey bi te yokkantu ko ndax way juróom bu baax Cheikh sëñ Assane Fall bi mu ñëwee ñu fekkoon liggéey bi sama Cheikh Fall ba woon na ko noonu la ko doon doxee muy fukki dab yi ak ñaar waaye moom bi mu dañu cas liggéey bi lu waay yokkul lu yaa ko wàññi nga xam ne sëriñ bi moom moo ko kattanoon dimbalal ak pas sama ku bëggam ak yi teen ju koy tax maanaam mu yóbbu liggéey foo xam ne ni kawe ba gis nga ko ñu ko ne xam nga dem ku jël ndab ci fukki ak ñaar bu lim nga ko kon na ni nimbal mako sama borom dimbali ak bëggum bëgg yoni ak ray gum ray maam ji baaje sama seran fall ak ak ak nangum gum nangu rek ndigal lool dal lan japp ni daal moo may katan di ni te wax dëgg ab ter sama borom moko joxe waye turu ko sama mom ni rek lam lam mësa dem waaw liñu liñu jaaxal moy boole wu ci ay wax waaw mom nak day faral di wax ni yalla sun borom amul kumpa ba sa ñaara ko min ay waxam da ngay deg muy wax da dafa wax ni liggéey bi sun ko mo wono liggéey ci gennu guddii mu yegg ci gennu guddii ñu dem jébal ko borom ci guddii gi te kenn du ko yegg nee noonu laay def ndax nee genn ginaar goo si ni gis ngeen ko mu def ko ci bi rek nee na a woon a junneem ndax nee na moom lépp lu muy defa bamta def a woon a junni waaye nee jëf ji moo dem ba toll nii mën ne moom kilifa yi koy yi koy liggéey loo sax ñaare kilifaam dafa fi nekk maanaam lu moom waaye saa su ne ndigal day jóge ci moom du hmm. loolu di ko jëfee ba ndigal li waaye moom daal wax moom du mbiram waaw waaw loolu moom yàlla moo ko doon. sëñ Baye man li ma bëgg a laaj jëwriñ mooy sëñ Amdi Khary Fall ci doxin wi nga doon wax. Mm-hmm. mbooleem kaddu yi nga xamante ni moom la Mouride Massé di wax mooy sëñ Amdi Khady mm-hmm. boo jëfee ba di mm-hmm. a mayu fi dara xaw a dee mayu fi dara sëñ Amdi Khady da koy ba ñuy teg mu ne da dee wet doog am li bëgg te loolu dafa mel ni moom dafay jaar ndax ci biir waxam sax way ñu bu baax wala ñu baax baax c'est Serif neewaa mo moom mu tudd waxtan waxtaan ba tuddu c'est Serif Assane bay mo Mor Talla mu samam sa maam Serif Fall lay sukkandiko ci ay waxam ndax mom moko yar ñaari saa bu wax da nga dem na sa bay mo Mor ba mu defé nangam sa bay mo Talla ba mu defee nangam doon bo yitte ju kay di borom pas bo boo seen ne jambar gi foko tak wessu nako na ko ñii mu di nekk ak momit dañu fa dox ni seen ndexati kenn du ko jaay jambar lo nak lima ci yaakaar nak moy lenn nit boko day jaay te li koy jaay moom mu njëgam lu lu ma sa marchandise bi bari bari bu fi ñeegi nekk du ko jaaxal loolu mo waral maam fi mel ni lo dé dé fi wetam lo bëgg bëgg dé du lo yërëm ndax da koy lén maam li nga ko defal ni sa so no rek maam jëgga fay fay gaangi fi nit na boko koy jaay marchandise moo xam ne lu marchandise mi seer seer njëggaa ngi fi ma mi du ko jaaxal légui légui talibé yi nga xamanteni ñom fi lañu bok wala sax ñu ñu dëgg Baye Fall wala sax ñu bëgg maam Cheikh ibrahim Fall rek ana lan nga leen di soñu ci li nga xamanteni moy liggéey bu reuy bi nga xam liggéey maam Cheikh ibrahim Fall wa liggéey bi day wax dëgg yalla li ci soñé moy li ci sëriñ bi soñu ñëpp ndax sëriñ bi day wax ni nit bo ànd mom bu jógee nga jog bu tege nga tek bu yekete nga yëkkati bu yeggee nga yegg te mom si Ibnu ko na xamna ni jamono juñ tol ni bu don dox bu daan dox ci liggéey be doxu day daw bu ko manal misaal neen na sax noonu lañ ko misaal waaye doonutul loxo si da dako dako dako dako koo da koo da tey cobantal bu kawé mhm. ndax ndog yi ko ne xam na ne ca ca ginaaw mhm. dañ dan baye ñu bari mhm. ba ajuma ñu xey ñew ñu rapé seen i ci suba bi jox leen ko waye mom mo dem ba ne bi kat dama togg ay ndogu togguma ay reer na ngeen di financé di ko di ko di ko saytu ni ma ko bëggee kon ñu ko ànd moom la war mooy nga farlu fagarwaat te waajaat te xam ne moom kat yitteem yëpp mooy yàlla suñu amul lenn loo xam si moom da na ko borom Tuubaa képp loolu dong mooy yi xam ne dañu ànd moom te di ay sottam te bëgg ko gën a takkuwaat te gën a jaajuwaat gën a laxasaaywaat gën a góorgóorlu te xam ne lii kat ndimbalu tey ci nekk ndimbalu ëllëg nekk ndax moom dafay wax ni sëriñ bi laaju leen seen i addiya ngir bëgg ngeen ñàkk laaju leen seen kattan ngir bëgg ngeen neew doole laaju leen seen jot ngir bëgg ngir bëgg leen a tàddal lépp loo xam ne si sëriñ bi def na ko seen digg seen diggante ren njëriñ dañuy nekk li daal moom xam naa moom xam nañ ko ci daa faal jërëjëf sëñ Saliou jërëjëf Baye Maodo kon mbokk internet ngi àndaat ak kon dugg ak yéen kuus ak yéen si biir wan yeneen élément yoo xam ne dina jariñ waaye dinañu jariñ ñi nga xamante ñooy teewlu kon jaa ngeen jëf ak saxoon jàmm jaa bi jóge nañ ci waañ annexe bi ñëw ci waañ bi nga xamante ne mooy waañ bu mag euh, bi nga xamante ni moo boot mboolem cin yi nga xamante ni moom la waa Green Noir di amee fii ci liggéeyu sëñ Amdi Khady Fall ñu ànd ak euh, sunu yaay joo xamante ne Soxna Fadi Diam Soxna lay laaj mooy naka ngeen di booloowee yéen waa Green Noir muy mboolem soxna yi nga xamante ni ñoo jokk ci kër sëñ Amdi Khady Fall di liggéey ci waañ bi di togg xéwal yi nga xamante ni moom la ñu war a jox ci fi neewal sëñ Touba naka ngeen di mën a organiser woo ba nga xamante ni benn déggoo doon benn kàddu lay doon benn liggéey lay doon xanaa wéy ci digal rek diko ko jëfe ni ko sëñ bi bëggé ndax dañi murid ndigal té ñun li ñu gëm moy señ bi té lu señ bi wax moom la ñuy té dañ nañu bolo doon benn jappo girin wa nak lool moy moy seen euh, doxin manam lepp lo xamni ñu ñor na señ bi rek mo moy seen yitte mom ci lool lañuy dox ci lañuy wax señam di nak moy titeur bi ñoom ñaan sagu baye faali moy señam di Xadi faa woon na yàlla moom la ñu gëm ca moom la ñu tiitaroo waañu nag gis ngeen ko ni mu koy doxee waañu mooy njaayeen fii giri noir yaa ngi fi taalibe yi mag yaa ngi fi sëriñ saa ngi fi liggéey rek waaw ñàkk ñàkk tedd waañu mooy njaayeen lan mooy njaayeen lan moo waral maanaam xam naa nag mën naa borom kër gi moo sant njaay ñu tuddee ko njaayeen moo ñu naan waañu njaayeen fii moom taali ku jóge Touba rek fii ngay toggee waaw jëf jël fii la ñuy toggee daayira Gris fii la ñuy toggee taalibe yi mag yet fii la ñu am cin léegi laaj muy jaaxal murit yëpp mooy euh, ba ñëwee léegi dañuy dégg benn tëgg muy euh, loo xamante ne ak cant la moom am di faal déwén na di déwén na moom am di faal déwén na di loolu noonu nga gis ñenn ñi dañ ci daan jàpp àll ñii di daanu ñii di jooy loolu lan moo ko waral yaa boobu ci sëñ bi xër ci sëñ bi rek sëñ bi kenn du moom xam nga ni ji jëf ku ko jëf wallaax di nga ko ne déwénati déwénati faal ji maanaam dañoo xet ci moom te li mu jëf ñu koy ñaanal fan wu gudd mu yàgg fi lool faal njaga yaaram ca ànd ak wér te nu yàgg fi ndax kan mooy sunu tiitar ñun moom la ñuy tiitaroo ci kaw yoon wi. mbokk yi ñu ngi ba tey ci waañ bi fegoo ak keneen koo xamante ne sunu waajur la. mu ngi fii ci waañ bi muy ajaratu Nogay Pen ajaratu Nogay Pen yaa ngi ci taalibe Sëñ Amdi Xadi Fall ñu ngi ci édition spéciale ndogu Sëñ Amdi Xadi Fall muy ñeenteelu lool nag moom la ñuy amee li yaa booy laaj mooy ban yëg nga am ci ndog yi nga xamante ni moom la sëriñ bi di defal ku tedd ki nga nekk fii ci wér waañ bi di fi yëg-yëg gi bari na te yëg-yëg gi day bëgg a yàgg jamonoy Sërif Asan Fall mm. ba nëga rek kër gi nii la musa mel mm. sëñ am moom daa dolli ba yéem doomu aadama yi nuy ñaan yàlla mu gudd fan lool te dese barke baayam ba nii mu ko desee yal na fi yàgg te wér nu ànd ak moom yàgg fi te sëriñ la boo xam ne moom kenn mënta waxi jalooreem tey doom ndax loo nekk mu nekk ci ak yow bu méttee mu ne ci ak yow bu neexee mu ne ci ak sëriñ la boo xam ne du daw res ci benn taalu bi lu nu ko ñaanal mu yàgg fi nu bokk yàgg fi moom rek xeet yaay boy li du li du goulet ni ñu koy waxe li kenn du ko ni goulet dembu amna na fu mu fekkoon liggéey bi. tay amna am fu mu ko indi. tay yow nga fekke dembu tay nga ne dala ñaanal nga yag fi. tey it sha allah wax ci ligey bi lu mu ligey ren. bu ne da cay yok téeméeram ba ñaar téeméer di wéy du ligey dara mu ko yem ca muy tool ye ya, muy sas ya, muy tabax ba muy lenen lu ko sëñ bi sase dina ca doli lenen lolu ci lañu juddu ci kanamam ci lañu yaru ci lañu mag ba tollu ni nu tollu musta arrière ben yon te arrière ben yon ay taalibeem bëgg ko nak fi mu fi way andi gisoo ko sañam yaay def lepp ndax baaxut sañam di xadikaam tay it jox mu jox ko señ Touba ngay gis. Ya boy lima la bëgg a laaj mooy saxaar si métti na koo gis mu ngi toxañ aji ay bëtam ndax amana liggey bi amna num mel. waye genn kaddu lañ fi dégg mooy Fall jërëjëf ma am di Fall. jërëjëf jërëjëf rek loolu tamit lan mo koy waral. tubaarkàlla xol bu sedd kenn yëgul saxaar fi tey sëñ Mortala Fall dane woon kenn du jóge ci ndog yi feebar loola mën a dal boo fi ñëwee da ngay wér waaye doo fi jógee mukk jàmbat dara ci saw yaram la métti boo ñëwee ci ndogu Seex ra Fall yi sëtam yi yor di ko def da boo ñibbee da ngay wér waaye dara benn feebar du la fi fekk benn feebar doo ko fi jël moo tax lu nu liggéey du xeeb te saxar si fi mu ne yëgunu ko ndax xol bu sedd kenn yëgul sab coono ndax xol bu sedd. Baye Cheikh Ndaw itam. waaye koo day euh, rakk koo xamante ne daa bokk si ñun di ànd ñun liggéey bi guddeeg bëccëg suba ngoon muy sëñ Maamu Ndaw kon sëñ bi dañ lay laaj mbooloo mi gis nañ leen ñii koo fi gis ñu fi nekk xaaj bi yëpp wala ñu si ëpp duñu julli duñu woor waaye lii la ñu am muy togg joxe li nga xamante ni mooy ndog yi bari nañ ñi nga xamante ni nag day critiquer ñii di jël lu bon wax di bon wala yu demee di ko teg si seen der yi ñuy laaj sëñ bi comme sëñ bi nee na xam la mën di laaj señ bi ana loolu mom lan lan lan la siy xel xambuloo nga ma dinaa xambu mhm. ci doole imam Cheikh Ibrahima Fall nak mi nga xamne mom moy xamber bu mag bi mhm. waaw critiquer mom mën ta ñak ci aduna bi yag na fi mhm. ba yalla sosé aduna bi la sos critiquer la sos tamit ñak critiquer bo nga gisé critiquer ñak critiquer moy ñi dañuy critiquer ñi duñu critiquer ci ësal la won avant yalla di sos aduna ni la ko yàlla namee kon nag ni ko yàlla nammee ñoo ngi koy àndeek moom ci noonee ci ni ko nammee waaye nag ñun liñ namm ki namm ki yàlla namm nammal ko ñii namme ci nammam nag di ko namm fu man di toll suñu tolluwaay ci moom mooy loolu kooku nag mooy Cheikh Ibra Fall jëw mu ci kenn ku dul Cheikh Ibra lii nag ñoo ko gisandoo am naa yaakaar nag kum yéemul yow du too yéemoot ndax digënté Cheikh Ibrahima Fall ak Ahmadou digënté dongala akub sëriñam donté sax non ñan ko mëna waxe way Sëriñ touba mom jéggina ay sëriñ ak ay ay wali yoog yoy Sëriñ touba mom ma nga ca kaw ñokali moy ni ma koy waxe nan leen àdduna kaat alaxira kat ba man mo rakat même yalla sax kat ba ay ñama bay Cheikh lolu de man leen dina leen ko gel de ñu ne bismillah man ma ne leen de jubluma ci lu aduna yi ganar salum penku saw du kat qibla la li nañ ko ndo xel xam ne nii rek la demee sikki sàkk nag mënta ñàkk man mi lu ne laay dégg lu lañ may wax waaye nangu naa dégg lu ne ngir maam Cheikh Ibra Fall mhm. maam Cheikh Ibra Fall daa nangoo dégg lu ne ngir Sëriñ Tuubaa mhm. moo tax mu daan wax doom waaj yéen mhm. doom waaj yéen ah képp ku ma yaakaar ne jokk ci man di nga sonn ëllëg waaw te bu jokk nga nekkee nag laa wax bu wéree da nga dégg lu ne bàyyi fal lu ne la ñuy dégg duñu julli duñu woor waaye nag fi fi fi a xaare ba mat a xaare nañ bàyyi ba àgg fa mu yàlla suñu borom man bàyyi Cheikh yàkkamtiwu wuma ci ñàkk a yàkkamti yàlla gi ma ci ñàkk yalla yalla yakamti wu dara dégg nga bari ñu xamne xam ne leen ci kasu bi tuumaa leen fi tuumaa leen fa tuumaa leen fa yobbu tuuma mën ta ñak ci yoon yi dégg nga ku lay xass na la xass ngir maam Cheikh Rafal ku lay doy dal na la doy dal ngir maam Cheikh Rafal ku lay ñakal fayda na la ñakal fayda ngir maam Cheikh Rafal mhm. li bon ba bon nga nan abbay Fall la ñu lay ñakal fayda ci luddul Cheikh Rafal mhm. abbay Fall la ñu lay doy dal ci luddul Cheikh Rafal mhm. abbay Fall la ñu lay xass ci luddul Cheikh Rafal loolu mo bon mang koy xel sama bop diko xel ñi gën di xelu ci lepp sëriñ bi di gën di xelu ci lepp sëriñ bi comme ni ma la ko waxe man aw ma xam-xamu maa ngi lay laaj nangam ne ma bàyyi Cheikh xambal rek xambal ne ma bàyyi Cheikh xambal su ko ah. defee may xambu rek muy bërëx bërëxi rek loolu moy wax ji liggéey bi naka ngi ni aduna eh. dara jógu fi mm-hmm. ku fokk ne dara jóg na fi yaangi ngi nax sa bop mm-hmm. lu bax fi mm-hmm. lu bon fi deng nga wa kay lay bax mi ngi bax lay bon mi ngi bon am na luy niru nag lu baaxut te baax am na luy niru lu baax te baaxut li am solo ba am solo rek mooy jaamu yàlla boo gis ak noo ko gisee ak num bindoo woo bu doon day naan sàngara bay lang teeyal ci moom bu fekkee amu basirab xam la tax mu koy def lu baax njëriñ jege na lool kam war a waaye lor jege na lool kam war a lor dégg nga loo xamut maandu ci topp loolee luy cosaan la balañ caa débat loolu mooy li am solo li am solo nag sol ko moy tax nga sol li am solo limul solo nak sol ko moy tax nga ñak solo ñak solo nak baaxut mam si rafal nak da di ku reey ci yalla suñu borom waye da sorig reey reey mbalanum yalla la boko sangum lak la daraja boko ko mu ñett la xam-xam boko ko mu dëpp deeng lor rek la geejuk si rafal nak ku dem waye ku diis dik te ku dik do mën dem dik leen ñu and ak mam si rafal ci woyof gi nango deg lu ne ak nak bu ci lu ne ngay deg da ñak fayda mhm. da waya di da rew, da xama di li ma doon wax rek mooy li ci nekk Cheikh Ibra Fall nee na waaj yéen da ngeen sonn doom ndax da ngeen dégg lu ne ndax li Ibra Fall si na dégg naa ko ab Baye Fall day nangoo dégg day nangoo assumé li am solo ba am solo dégmalal maam Cheikh Ibrahima Fall mi dégmal Seyxul Xadim liggéey liggéey bi loolu mooy tawfeex li mooy ndimbal li Ibra nag Ka ko ko seereel yéen doo liggéey la wax fanaane ba luy ginaar nekkul kureet moo ko xewal daawul doxi moo fa xewal nuyoo diraam mënu tere wuyooti naam fekkoon ñuy jàng fa maam mam muy muri tu di fexe mboolem muri di di ko soow mu mel ni dof bu mata yeew ba mujj far ñëpp ne siiw jël meloom ya far di ko doxe mu far amul moroom far gëni mbokk gëni doom jaaraama ni leen jaaraama jaaraama ni leen jaaraama ci kaw ni leen ku ne jaaraama jaaraama xaadim wàcc nga wàccaale ak texe ci la ko waxee yow Cheikh Ibrahima Fall musulu jiyeg ndigal ay waay Fall naka nga jóg taxaw ndigal ah ko xam sa boor duñ ay waay garmi yaa tax ñuy texe ah am ngay dërëm am ngay ngërëm jël ngay dërëm jënd ngërëm loo mës a xam tabal kërëm ay junni Fall nga daan joxe joxe na at yey gileem yu safi ngur du safi koom soldaar sa moo joxe doomam faddilu Fall am nag texe kon nag texe gi dëgg mooy Cheikh texe gi deug deug moy mam Cheikh Ibrahim. Fall kuy nelaw yewul nelaw doyna li ngeen di def diko jëmele ci lu bax ci kanam rek la jëm kuy def lu bax lu bax lolé ngay def dalay dolé jëmele ci lu bax waye kuy def leneen lu lu bax muy lu bon lu bon lolé dalay dolé jëmele ci lu bon kon nak nañ teunk suñu bop ci lu bax jaarale ko ci ki baax muy maam Cheikh Rafal Cheikh Rafal mooy baax baax aw yoon la waaye bu nee dëkk ba mooy gën gën mooy sëñ Bamba waaw mbokk yi comme ni ngeen ko gisee ñu ngi àndoon ak yéen biig ba léegi fii ci euh, njaareem kër sëñ Amdi Khady Fall ñu àndoon ak yéen ci wàccaay yi muy gàtt yi nga xamante ne moom lañ doon lewetal muy ganaar yi nga xamante ne moom lañ doon defal waaye itam bu ñu xëyee tey nekkoon ak yéen ci waañ bi nga xamante ni moom la murid newoon àndoon ak soxna yi àndoon ak jëwriñ yi àndoon ak képp ko nga xamante ni sa kàddu mën naa jëriñ murid yi mu indi ay leeral yi nga xamante ni moo jëm ci liggéey sëñ Amdy Khady Fall xam naa moo nekkoon édition spéciale ñeenteelu ajjuma ndogu kër sëñ Amdy Khady Fall leen sant bu baax ci teewlu ngeen àndoon ak ñun sëñ Bay muy ajjuma bu mujj si li nga xamante ne mooy weeru koor bi kon bisu tay bii la ñi nga xamante ne ñooy waa Kawsara Fall di tëj seenu ndogu ba déwénati sànq gis ngeen waay wi déwénati euh, Amdy Fall déwénati kon ñu ngi ñu ngi leen di jox fii nii si Kawsara ba déwén incha allah ñu ngi laatale yeneen yeneen yaatal kon ñu ngi ñu ngi tuub bu baax bàyyi noo ngi di tuubal ñëpp nag lépp lu dëng rek na ngeen xam ni su ñun la waaye lépp lu jub na xam ni itam si sëriñ bi kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax te di leen jox di daja ba benn yoon jaa ngeen jëf waaw ah, jërë ngeen jëf